Adja Moussa Toumbara journaliste euh, à mm, jàngat gi du gudd teewaay wi mooy li waral taskat xibaar bi yëpp teew mooy jéem a xam liñ fi mën a jëlee comme information te mu jëm ci audition bi. yàlla dogal na suba ba léegi ñu ngi fi teel nañu ñëw ngir gàttandu ñëw Ousmane Sonko mu tàmbalee départ am fële ca cité kër góor gi ak la ca xew ci dispositif sécuritaire goo xamante ni yombul woon ña fa dëkk ngir jaabante bi ko dem ak dikk bi ngir matuwaay woo xam ne takk dara jël nañ ko waaye ñëw nag jàmm vers midi diggante midi ba quinze heures moins ñu déglu ko mu di trois heures yu manqué ay simili donc mun nañ ko tënk ci moins de trois heures de temps la audition bi la xew ci biir nag ump nañu peut-être avocat yi dinañ ci dikk waaye li ñu mën a jàpp mooy waxtu wi Ousmane audition jeex na bàyyi nañ ko waaye nangul dem ndax dafa am xew-xew ci diggante bi xam ngeen ni fan yële ñu génn nemmeeku tur gi amoon ca département Mbour bi nu àggee ba gox gi ñuy wax ci kii dafa am ay affrontement yi fa diggante takk diggante Ousmane Sonko ña mu àndal ak ñi nga xamante ni ñoom ñee waa APR mu am ay ñi ci loru loolu nag tax tey am ñu ñëw teg loxo muy GIGN garde rapproché mi waxtu wi nee na ñu ngi leen di jëmee mbuur ci xibaar yi ñu am d'ailleurs sax procureur bu Mbour Mamadou Diop war na jàkkaarloog taskatu xibaar ngir indi ay leeral ci xeexoo cikki bi donc li nu mën a jàpp tey mooy audition auditionné nañ ko noppi na waaye nangul dem parce que jàpp na ni ñamu àndaloon ñëw muy garde rapproché mi moom du dem sans ñoom léegi nag ndax noonu la nar a demee dinañ mujj bàyyi garde corps yi wax la duñ leen bàyyi ban solution lañ nar a am ci Ousmane Sonko ngir ñu jéem a xool beneen pexe par rapport à la situation waaye ngir tënk rek mooy luñ fi indi woon mooy wut xibaar lu jëm ci audition bi audition bi jàll na ak jàmm liñ doon ragal ci affrontement wala yi fi xewoon mois yi weesu wala at mi weesu ca weeru mars amagul xamaguñ nag ndax Ousmane dina dem wala du dem ndax dinañ accepter li mu wax am déet waaye lu ci mënti am li tubaab di wax naan nous prenons notre mal en patience en attendant de voir la suite des événements en tout cas li ñu mën a jàpp mooy Ousmane auditionné nañ ko waroon nañ ñibbi waaye moom nee na mënta dem du génn bureau doyen des juges ndax ñi nga xamante ni ñoo ñooy ay garde corps am dañ leen a teg loxo te dañ leen a war a yeewi jërëjëf waaw